abonnez-vous sur Hamalma TV ngir jëmmal kaddu mag ñi assalamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk julit ñi ngi leen di nuyu di leen ziara bu baax di leen ñaanal jàmm te di ko sàkk ci yéen bu baax di leen wax ngeen gën di abonné bu baax ci seen seen bi di Hamalma TV te aimé vidéo te di ko partager bu baax a baax di wax ñëwati leen seen heure de prière di waxtu julli di 17 23 mars 2023 ñi ngi salatu cinq heures cinquante neuf minutes suba si ñu ngi koy julli six heures quatorze minutes tisbaar ñu ngi koy julli quatorze heures quinze minutes takusaan ñu ngi koy julli dix sept pile timis ñu ngi koy julli dix neuf heures vingt huit geewe ñu ngi koy julli vingt heures vingt huit di wax yal na yàlla nangul ñu suñu jàmm yal na yàlla mi ñu dégg ak topp te lépp lu ñu ko jàmm yàlla ñu ko nangul bi jaay nabi Mustafa sallallahu alayhi wa sallam di leen ngeen di abonné bu baax ci seen seen bi xamal ma TV te aimé vidéo yi te di ko partagé bu baax ngir ñeneen ñi mën seen jot jërë ngeen jëf